bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wa salaamun ala ibadihi alladina stafa alayhim wa ala imamihim wa afdalihim sayyidi wa habibi abil qasim muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi almuhtadin mbokki jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñëwaat nañ tey jii ci jataayu fàttalante yi am ak jullit yi fii ci masjidu nuur ci gudd ajjuma gu nekk tey jii di gudd ajjuma ñaati fan ci weeru gàmm tey la ñaati fan tey la fukki fan ak juróom juróom benn ci weeru gàmm ñu ngi fii ci masjidu nuur di ci fàttalante suñu diine jamono yi yëpp ñu ngi woon ci waxtaane mbir julli surtout bunt bi nga xam ne moo mujj ci laxdari tem aju ci ni ñuy defaree julli gannaaw bi ñu seetloo ne jullit yu bari am nañ jafe-jafe ci julli te jàpp na loolu jaaduwul ndax julli mooy jaamu yàlla goo xam ne bu yomal xiyaamee ci lañuy tàmbalee seet bi su baaxee ñu wéy su baaxut ñu arrêté seet bi loolu nag lu garaaw la loo xam ne ab jullit waru koo sàggane ba dem ba foofa loolu di ko dal yàlla bu mu dal benn jullit ñu ne woon nañ ci jàppalante euh, wax ci ci làkk wi nga xam ne euh, ñu bari ci Sénégal yi dégg nañ ko euh, bàyyi arab bi ndax bokk na ci li jafe leen jafeel njàngam diine mi ci Sénégal mooy boole gi ñu koy booleeg arab te arab nekk làkk wu ñu la loo xam ne nàmpuñ ko nga xam ne da ngay boo waxee baat bi da ngay bëgg xam nu firi ba pare. door a xam lan lañ bëgg wax am nga loolu c'est très compliqué ñu jàpp ne tënk tënk bi ñu ci defoon war na mën a jëriñ ñu dem directement ci làkk wi ñu dégg wax ci liñ liñ jàpp ne loolu la lax doy wax euh, wax dëgg yàlla bi ñu paree euh, mbokk mi Alioune Badara ga ndaanana Alioune Badara Cissé ñu ko wax Cissé ndaanaan def na ci liggéey bu rëy rëy boo xam ne man partout partout ci àddina bi la ma nit ñi di jokk di rafetlu di kontaan ci lool mu def ko benn defal ko benn euh, kii boo xam ne euh, benn lien boo xam ne boo boo ci duwee da ngay am euh, treize dars yi parce que biñ biñ paree mat na treize dars gannaaw ñu lool waxtaan ci lan lañ ciy teg waxtaan nañ ci lu yàgg loolu ne suñ xel dañ nañ ko ba ci ajuma ji jàll laa mujj gis benn benn téere bu am solo boo xam ne euh, jàpp naa ne mën nañ cee nafar téere bi mu ngi tudd mawsuatul axlaaq mawsuatul axlaaq bu ñu ko bëggee firi ci wolof mën nga wax kaddu jikko yu rafet yi kaddu kàggu kàggu jikko yu rafet yi kaggu mooy bibliothèque kaggu ci wolof mooy fi ñuy denc ay téere waaw moom mawsuwa la ko tuddee ma ma firee ko kaggu jikko yu rafet yi donc soo bëggee xam jikko yu rafet soo ñëwee ci kàggu gi di ko di nga ko ci gis donc mën nañ jàpp loolu ne téere bi mu ngi tudd kàggu jikko yu rafet yi benn koweïtien moo ko moo ko moo ko bind ndax ci Koweït lañ ko lañ ko édité muy téere bu ama am solo buy wax ci mbiru jikko wax naa ne jullit yi lislaam mooy jikko lislaam mooy jikko loolu fu ne lañ ko mën a xamee yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ci boppam bi biñ ko laajee bi mel ni dañ koo laaj lu ko tax a ñëw lu tax yàlla yónni ko def ne dama ñëw pour mottali jikko yu rafet yi kon jikko mooy lislaam kon buñ demee ba jamono ñëw jullit nit di mu bóot lislaam di yëngatu bañ jàpp ne ku bëgg lislaam la ku gëm ba pare mu ñaaw jikko loolu lu jar a corriger la loolu lu jar a te loolu am na am na fii ay ndaw yu fonk jàkka foo leen fekk ñi ci jàkk ji waa waaye waaye boo jëflanteek ñoom rek mas mari day tali waaw dañ la woon ay jukko yu sew yoo xam ne da def ni jullit ñi wala jug te lool seen waajur yi koy tàmbalee ci seen waajur yi moo tax man ma wax leen ko ba mu leer ma ne man euh, ku am diine kuñ ne daa am diine te ay way juróom waxuñ ko man jooju diine gaw waaw même bu même bu ay bu ay way juróom amul diine même bu ay way juróom amul diine soo amee diine mu neex leen soo amee diine rek neex leen waaw même jur buñ fonkul diine yow soo amee diine neex leen ndax da nga leen di jëriñ te doo leen lor te doomu aadama ku ko jëriñ te loro ko mu bëgg donc loolu lu jar a bàyyi xel la donc am diine mooy neex a dëkkal waaw mooy neex a dëgg loolu moo tax ma jàpp ne it faut ñu waxtaane waat ko parce que dafa mel ni dañ ko bëgg sàggane te loolu amul benn njëriñ loolu ci lañ tàmbali woon ci incha allah ci alxames yi jàll ma tënkoon fii ne jikko yu rafet yi dafa dañoo am ay ndey jikko yu rafet yi dañoo am ay ndey ndey yi mooy asab nit dafay man a muñ bi ci topp mooy al iffatu alifan mooy fegu mooy fegu bi ci topp mooy ashajaatu jullit day day am fit waaw ñetteel mooy alaadlu jullit day maanu maanu nag léeg-léeg wala fi yàq yàq ko parce que wala bu ñu nee maandul mooy bul dugg ci bul wax samay affaire bul dugg samay affaire loolu du maandul loolu tudd maandul loolu tudd bu fekkee loolu mooy maandu ci du du maandu ci arab maandu mooy lu ne nga teg ko place loolu mooy adlu adlu mooy lu ne nga teg ko sa place waaye jàppal sa njàmbur sama yëf même bu fekkee li muy def jaaduwul loolu tuddul maandu waaw loolu ñu bañ ko donc ñeenti jikko yi mooy ñeenti jikko yi nga xam ne ku bëgg a rafet jikko da nga leen di jikkoo moo ñoom danañ jur yi ci des mooy da góor góorlu ba mën a muñ góorgóorlu ba fegu fegu sa bopp sàmm sa bopp ci ñuy aaye waaw lépp lu ñuy tere nga fegu nga sàmm ci waaw góorgóorlu ba am fit ku amul fit mënut a baax parce que ñi ñi bon dañ lay napp dañ lay dañ yóbbu sa fit ba loo baax duñ nangu nga baaxee fi parce que boo fi baaxee da leen di weer moo tax lu ñu sonn lu ñu waroon a sonn ci baax dañ koy sonn ci yow nga bañ a baax waaw moo tax ku am fit mooy mooy mën a baax bi ci topp mooy nga maandu te mooy lu ne nga teg ko ci bérébam loolu mooy ndey jikko yu rafet yi boo ko amee jikko bu rafet bu ne mën nga ko amati jikko yu bon itam dañoo am ay ndey ndey yi moo ci njëkk mooy aljahlu mooy ñàkk xam li xew ñàkk xam li xew musiba la ñàkk xam li xew musiba la daanaka lu dal doomu aadama ñàkk xam li xew ba parce que ku xam li xew rek def li nga war a def ku xam li xew rek def li nga war a def koo gis muy dof dof lu dafa xamul li xew rek donc jikko yu gën a yi bon yëpp ñu ngi juddoo ci ñàkk xam li xew bi ci topp mooy azulmu tooñ mën a tooñ te ñaare ku xamul li xew da ngay mën a tooñ maanaa ko ku xamul li xew da ngay mën a tooñ mooy xale ba ba mu gisee gaynde ga te xamul gaynde ci dafa ñëw jàpp ci mustaasu gaynde gi yaayam mi xam gaynde ba mu séenee gaynde gi leket gi mu yoroon dafa war di toj toj ah, ku xamul day dëgër fit nit bu xamul day dëgër fit waaw ah, moo tax nga gis fii dëkk bi lu neex waaye wax ci diini surtout ñi ñuy tuddee kilifa diini parce que gëmuñu dëkki parce que nekk tuddoo kilifa diini taxul a gëm dëkk yaa ah. parce que kilifa diini gi dafa am njariñ moo tax ki ko ki ci judd nangu ko mais du farfas dafa gëm dëkk gëm dëkk garaat la yàlla may ko ñëpp parce que ci la nit ñi baaxee ci la ñuy bone donc nit mën naa guddoo ci këru diine ba tudd kilifa diine te gëmul dekki ndax jëfam yëpp day di dekki parce que ku gëm dekki jub te kilifa diine yu bëri yu jubadi ñoo nekk ci dëkk bi kàddu gu diis na xam naa dina diis ci mais léeg-léeg <laughs> léeg-léeg dama léeg-léeg tam man tam affaire yi dama koy dama koy faral kii nuur rek parce que tam c'est très compliqué waaw ah, parce que di ko def te kenn di ko wax itam c'est pas pas possible kon mën a tooñ ci jikko yu bon ndey jikko yu bon yi la ñetteelu mooy ashahwatu mooy gëm bànneex topp sa bakkan topp sa bakkan ci jikko yu bon yi la bokk ñeenteel mooy alxadab mooy gaaw a mer yooyu lañu tënkoon ci alxames yi jàll tey jii ñu ñëw di wéy ci wàllu woowu incha allah di wax ne jikko ju rafet ku ko bëgg a am yaa ngi koy jëlee ci alquran jële ko ci sunna jële jële ko ci jaar-jaaru nit ñu baax yi waaw ndax xam mbaax xam mbaax dong du tax a baax xam baax gis ku baax mooy tax a baax loolu tax modèle am solo loolu modèle am solo yàlla mënoon naa jël alxuraan wàcce ko ci kaw suuf bàyyi ñu may ñu ñu mën koo comprendre te yonent du am mais xamoon na bu ko defee duñ baax parce que bu ñu waxee luy baax te wonuñu ku baax mën nañoo jàpp ne nit mënut a baax loolu moo tax jamono ju nekk doomu aadama yi dañuy soxla ku baax ku ñuy jàng ci moom baax loolu jamono yëpp lañ ko soxla jamono yonent yi waaye bu fi yonent yi nekkul tam am na ñu leen wutu ñooñu ci ñoom la ñuy xoolee baax kon ku bëgg a baax li ngay njëkk a def mooy jàng alquran borom bi tabaraka wa taala mi ngi wax suuratu isra al isra aaya neuf inna hada alquran yahdi lillati hiya aqwam inna hada alqurana yahdi lillati hiya aqwam mu ne alquran ji mën na leen a yóbbu fi ngeen jëm alxuraan ji mën naa tax ngeen baax alquran ji mën naa tax ngeen gën a baax loolu yëpp mën nañ si koy dégg ci aaya bi kon alquran source mbaax la ndax boo xamee ne mën ngaa baax alxuraan ne mën naa laa wax nu ñuy baaxe soo jàngee alquran di nga baax sooratu naxl aaya juróom-ñeent fukk inna allah ya'muru bil adli wal ihsaani wa iitaa'i dil qurba wa yanha anil fahshaa'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkaruun sooratu Nahl mu ne yàlla digal na leen ngeen maandu muy benn waxoon nañ ne maandu ci ndey jikko yi la wax yàlla digal na jullit ñi nit ñi ñu maandu nit day maandu maandu du tekki génnee sa bopp ci li xew maandu mooy lu ne nga teg ko fa war a nekk yàlla digal na leen ngeen maandu digal na leen ngeen rafetal ngeen di def lu rafet di ko wax dee leen def lu rafet di ko wax wa itaay dul qurba yàlla diggal na leen ngeen jàppale seen mbokk yi waaw yàlla dafa digale jàppale koo tane waaye mu njëkkee ci ki gën a jafee jàppale ki gën a jafe jàppale mooy mbokk moo tax ku bëgg a baax da ngay def li gën a jafe li yomb yi ñépp ko man waaye di defal koo xam ne bu boo bu fa boo fay jógee mu miim ko su ko xoolee xeeb ko su fa kenn ku mu jëw la kooku neexul la defal kooku kuy defal ngir yàlla rek ko mën def kuy def ngir yàlla doo nga mën a defal mbokk mbokk moom lu dul ñeent yenn mbokk yi am na ñu ci yàlla musal waaye ñi ëpp ci mbokk yi du ñu nangu seen mbokk teral leen duñ ko nangu moo tax yàlla buy tagg jàmbaar yi tey ñoom lay tudd ñi nga xam ne nangu na ñaa defal seeni mbokk ndax mooy defal ku la dul wax jërëjëf mukk du la ko wax mukk du la wax mukk jërëjëf te bu fi bu bu bu kenn fekkewul mun du wax ne jox nga ko waaw te boo ko joxee lu bari mu xepp misaal yu bëri laa ci am nett naa ko ba tey am na fii bi ma dëkkee Grand Dakar bi genn góor gu fa ñëwoon gane si bi am benn xale bu nekk France chaque année yàlla dafa dem moom chaque année day ñëw vacances vacances am fii la koy def bu ñëwee day jaa day jël fi taxi dem fanaa dem dëkk dëkkam mu ñëw fekk fi góor googu góor gi mbokk am la mais duggante mu jël 5000 francs jox ko góor gi xool ko ni maa ngi moom rek ñoo nekk fii mu ne xay xay daal di koy sàkk ne moo pot cinq mille francs la may jox ma mer ma ne góor gi yow de li nga def ñaaw na lool mu ne muy xujj di ma xool parce que sama gan la woon ma ne ko kii moom kii moom sa mbokk la ga waaye wóor na ma ne sa dërëm musta ci moom walla boog yaakaaru mu am jom mu dem ci àll bi daan doolem ñibbi si jaar fekk la fi dala fi fekk donc da ngeen fi daj yaram ak mbaaxam tax mu jël ab seemi la mu jox jërëjëf rek ngi ci war a teg mu ne non damay kaf rek ko noo kafuloo dara donc defal sa mbokk moom ku munta def ngir yàlla booy boo nga bàyyi parce que duñ la gërëm duñ la gërëm duñ ko reconnaître moo tax wa aati dal qurba wa yanha anil fahshaai wal munkar waxul mu bàyyi ko de da koy tere la wax day tere yàlla dafa digle ngeen bàyyi fahsha mën nga ko firee njaaloo wal munkar ak lépp lu bon wal yi ak bew nit du bew bew mooy teg sa bopp foo nekkul yàlla ne ya'izukum la'allakum tadhakkarun maa leen waar maa ngi leen di waar ndax ngeen fàttaliku ni ngeen war a mel ngeen xam nu ngeen war a mel ngeen mel ko kon alquran daf ñu digal ñu ñu ñu baax dafa ñu digal ñu baax tudd na fi ay ndey jikko yu bari mu wax ci suurtu ak aaraaf suurtu aaraaf aaya fanweer ak ñett qul innama harrama rabbil fawahisha yàlla ne yonti waxal ne leen sama boroom nee na araamal naa fawaahish yu ñaaw yépp njaaloo ci la bokk ma zahara minha moo xam li feeñ la wa ma batana ak li nëbb mbooleem yu ñaaw tëf yi yi nëbbëg yi feeñ yëpp yaa yàlla araamal na ko ci yéen wal isma ak bakkaar wal bariya ak bew bi xayril xaq te tegu leen ko fen wa an tushriku billahi ma lam yunazil bihi ngeen di bokkaale yàlla di jaxase yàlla ak mbindéefam yi di jël jëru yàlla di ko jox mbindéef yi bu leen ko def ndax amu leen fu ngeen ko teg amu leen ci benn benn preuve waa an taqulu ala allahi ma la taalam ngeen boole ci di wax ci yàlla lu ngeen xamul yii yëpp ñu koy def ci jamono léegi yii yëpp ñu ngi koy donc suñ sikki yëpp sikki yi ñu yëpp alxuraan def ñu ko aaye kon suñ jàngoon alxuraan bàyyi ko wax loo xamut waxal yàlla loo lu amut waaw surtout fii Sénégal fii ne nii moom dafa am ñu am feelingu euh, merloo jullit dafa am ñoom feeling boobu feeling nga xam ne du ñu am mukk lu leen neex lu dul dañoo merloo julli te nag ay julli la ñu doon lañuy tuddoo bokk léeg sax ñu nekk ay sëriñ ay sëriñ waaw xam nga ci gàmm gi benn sëriñ wax na wax ju ñaaw joo xam bëgg julli yi mer doo nga tax moom kese ak am feebar bu nit ñi xamul parce que man kilifa boobu bëgg naa su ma sañoon docteur yi xool ko ba xam ban problème la am ak jigéen yaakaar naa am na lu. am na yaay am na lépp foo lu mu wax dugal ci jigéen ba mu ko xamee ba léegi lu mu wax lu wax jo sori sori dëgg ci dugal jigéen donc wax dëgg yàlla loolu li ko ko may mooy lislaam dafa amul kàddu Sénégal rek moo tax dama wax xale yi na leen am na ñu ko posé débat est-ce que duñ ci wax amul na ma ne non parce que wax boo looy wax booy wax looy wax loolu duñ ko duñ ko réglé wax loolu l'islam moo waroon a am kàddu ci réew mi làpp ko làpp ko dañ koy làpp non parce que amul lu ñuy def parce que waxul ci waxul ci xel waxul ci xam-xam ci yaradi ko la wax yaradi ko moom làpp rek comme pouvoir buy làppaate amu fi loolu mooy problème moo tax lu neex waaw dañoo dañuy dara dañoo yab julli ñi dem kese c'est triste donc voilà kon alxuraan moom. Euh, ay ay yu bari yu mel nii ñëw nañ di wone ne ku bëgg a baax dangay ngay jàng alquran euh, moo tax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi ñu wax moom mi ñu yàlla wax de nañ jàng ci moom baax ndax ni nit di baax mel na ko bi ñu laajee soxna Aïcha nan la yonent bi wax mel dafa ne yonent bi ni mel mooy ni alquran mel mooy li alquran wax kaana xuluqu xuluqu rasuli alquran kaana xuluqu rasuli alquran xadis bu wér la imam muslim bind na ko ne xadis bu wér la soxna Aïcha moo ko wax moo ne yont bi ne alquran wax la mel kon alquran moo moo ci la ñuy jànge baax xaafis euh, ibnu kathir firikat firi na alquran nee na wa maana hada annahu qad alzama nafsahu an laa yafala illa ma amarahu bil quran mu ne lii soxna Aïcha wax moo di ne yant bi dafa imposé boppam ne du def lu dul lu ko alquran wax wala yatruk illa ma naha anhu alquran du bàyyi lu dul lu alquran wax ne bàyyi ko loolu mooy ne alquran mel la mel fa saara imtithaalu amri rabbihi xuluqan lahu mu dem ba déggal yàlla nekk ci moom jikko déggal yàlla mu ji nekk jikko nga xam ne day jóg rek jubali duutu ci duutu ànd ak réflexe duutu ànd ak xalaat ay réflexe lay doon day mujj nekk jikko eh, salawaatullahi wa salaamu alayhi ila yawmi din aywa su ko defee loolu mooy ku bëgg a baax da ngay jàng alxuraan wala nga déglu alxuraan jàng alxuraan déglu ko nag dafa laaj nga xam li muy wax yombul nag ndax alxuraan arab la waaye du arab kese kese arab bu xóotu xóot moo tax dégg arab tax koo dégg la malheureusement nag jullit yi sono luñ seen bopp ci dégg li alxuraan di wax dañuy doyloo rek di dégg muy wax duñ xam lu muy firi loolu nag ku mu ku ko mënoon a bañ a def moo gën ndax lettre la alxuraan lettre la yàlla moo ko bind jox ko ant bi ne ko soo demee nee leen ni ma nii laa bëgg ñu mel ko ni ma bëgg ñu mel ko def naa ko ci ci lettre bi ñun jànguñu lettre ba pare bëgg a mel ni yàlla bëgg ñu mel ko y' problème y' problème waaw que ñun lettre bi document bi nga xam ne. ki yàlla tënk ni mu bëgg ñu mel ko ñun jànguñu ko wala buñ ko jàngee dégguñ ko leen daal mooy suñu chance xëy na mooy lim ko booleeg lim ko booleek ne xool leen yonent bi moom mel na ni alxuraan xool leen yonent bi moom mel na ni alxuraan xëy na bon loolu moom ñu bari ci ñun ñu ngi leen di jàngal jikko yonent bi am ci yu ñu jàpp takk ko mais ñi ci ëpp ci ñun tam euh, jéemuñu nur yonent bi puisque dañu jàpp ne ki yent bi kenn mënut a mel ni moom ñun bëri nañ problème waaw ah. léeg nag dañuy féex a féex ba defe ne amuñ benn problème mais boo teeyee tuuti poser question rek gis ne yow am na problème yu bëri yu ñu réglé gul ñaareelu source bi source mbaax ku bëgg a baax mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw jànge baax ci yonent bi alxuraan moo ñu ko wax baax ci bi alxuraan moo ñu ko wax sourate Hashr ay juróom-ñaar wa ma ataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu wattaqullah lu leen yonent bi jox jël leen lu mu leen wax def leen lu mu leen tere bàyyi leen te ngeen ragal yàlla kon yonent bi moom moo ñu firil alquran waaw euh, jafe-jafe bi ñu amoon ci dégg alxuraan jafe-jafe boobu yonti moo ko dindi parce que moom mën naa dégg alxuraan ndax loolu mooy sasam mën na koo dégg mën na koo dégle dégg na ko dégle na ko moom gàcc ngalaam te loolu mooy euh, li ma wax ci contribution bi ñu def ci gàmm gi ci mooy ku bëgg a xam lan mooy lislaam wala nga xam kan moo yonent yàlla muhammad foog nga jàng ñaari discours yi nga xam ne ñoo ñoo ndar kepp lislaam mooy discours bi ubbi lislaam ak discours bi ko tëj discours bi ubbi ubbi lislaam jaafar ibnu abi talib moo ko jànge achab éthiopie moo ko jànge éthiopie mooy ba leen Quraysh bu na xatale yonent bi yebal leen éthiopie bañ demee éthiopie ba ko Najaasi laajee lu lu bees lu lu tax nangu seen mbokk yi nanguñ ngeen dëkk ñoom fa la ko la ko jaafaroo loolu mooy lislaam ki jullit bu na war naa dem déglu jikko muy benn ñaareel bi mooy keroog bi yonent bi paree liggéeyam àggal liggéeyam di ñibbi di tàggoo ca mag keroog ba muy tënk li ko yàlla yónni woon yim gën a bañ ñu fàtte ko yim gën a bañ ñu fàtte ko mi ngi ci discours boobu waaw discours boobu tam discours la boo xam ne jar na delluwaat jar na delluwaat waaw malheureusement euh, ñu bari ci ñun duñ ko duñ ko bàyyi xel te disque boobu ci la bi tënkee lépp lu mu bañoon ñu fàtt ko li mu gënoon a bañ ko ko fàtte léegi nag li doy waar mooy li li mu gënoon a bañ ko ko lañ gën a fàtte mooy tuurante deret rayante lekkante ay alal naxante kenn ku ne nax mën a nax moroom lekk alal ak tooñ dëkkandoo tooñ dëkkandoo waaw ak toroxal jigéen waaw yooyu yëpp tudd na parce que xamoon ne ñun danañ ci jalgati malheureusement ñuy continuer di jalgati ba tey kon ci sunna yonent bi lañ lañ la ñuy jànge baax loolu tam alxuraan moo ñu ko wax surtout ahzab laqad kaana lakum fi rasulillahi uswa hasana ne yonent bi doy na leen jànge baax yonent bi doy na leen jànge baax man ngeen a jàngee baax ba àgg ci fu kenn eggut ci yonent yàlla muhammad ndax fi mu àgg ci mbaax kenn àggu fi xasuwa asana waaye nag ñëpp mënuñ ko ñi ko man mooy li man kaana yarju llaah wal yawmal aaxir mooy ñi gëm yàlla ni ñu ko war a gëmee ba pare gëm dekki ku gëmul dekki du bëgg a baax ku bëggul baax soxla roy roy yonent bi ku gëmul dégg bëggul baax lu muy doy baax gëmul dekki fii la gëm fii daa jàpp ne ku baax doo doo ko am fii ku ku baax du ko jëkku dangay ngay door cee mën am preuve bi mooy ñi dëng daanaka ñoo ko am àdduna xam naa am na ñu jub ñu ko am te loolu mën naa war naa mën a nekk waaye ñi ëpp ci ñi ko am jamono ji ñu dëngale kon parce que gëmuñ dekki ku gëmul dekki nag doo am frontière ah. ba tey suuratu nisaa ba tey dañu wan ku bëgg a baax dangay jàng dangay dem ci sunna cinquante neuf aaya fa in tanazaatum fi cheyin fa rudduuhu ila allahi wa rasul in kuntum tuminuuna billahi wal yawmil axir xam naa aay yi day quraan yoon yi war nañ ko waroon naa leen mën a gis ba ñu leeral ba ko ñoom ñi jàpp ne yonent bi amul benn rôle bu mu war a joué ci dundu julli et que alxuraan rek réglé na lépp <laughs> man comprendre ma ko ci aaya yi mënuma ci comprendre parce que kii daf fa in tanazaatum fi shay'in bu ngeen di werante lii nii la wala du lu ngeen bokkul lu ngeen ko gisee lu ngeen bokkul lu ngeen ko gisee lu ngeen bokkul lu ngeen ko jàppe dem leen laaj yonent bi nag ngeen ko war a jàpp dem leen ci yàlla ak yonent bi yàlla mooy alxuraan yonent bi mooy sunna man loolu laa comprendre yàlla mooy alxuraan yonent bi mooy sunna in kuntum tuminuuna billahi wal yawmil axir su fekkee ni ngeen gëmee yàlla baax na te loolu li koy fire mooy gëm ngeen dekki ku gëmul dekki mënut a baax loolu yépp la yonent yàlla Muhammad tënk ci xadis bu bu tënku innama bu'istu li utammima saalih al am na texte bu wax loolu am beneen texte bu wax innama bu'istu li utammima makarim al ñaari texte yëpp am na innama bu'istu mooy lii dong nga tax ñu yónni ma innama tufidul xasr innama bu'istu tekki yónni nañ ma waxul loolu de yónni nañ ma ndax moom a tëj déedéet def na lii dong nga tax ñu yónni ma lii dong nga tax ñu yónni ma du leneen mooy lan mooy mottali jikko yu rafet yi mottali jëf yu rafet yi kon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy rolam ci ci diini ji ah. loolu moo tax sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñu takkoon seen digg taxaw temm ci jàngee ci yonent bi ni ñuy baaxee taxaw temm ci jàngee ci yonent bi ni ñuy baaxee mu nekk occasion boo xam ne ñoom bëgguñ ko ratee ndax bu xasee dem c'est fini waaw am chance dund ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam muy def ngay gis muy wax ngay dégg loolu ñëpp amuñ chance boobu moo tax ñoom bugguñu woon raté occasion bugguñu koon raté moo tax ñu bëggoon bari woon lu ñuy bëgg a nekk ci yéen fi yéen bi nekk bari woon ñu bëgg a toog ak lu gën a bari ak yéen te la yéen bi tam bugguloon loolu ndax bugguloo ñu bàyyi seen soxla yi ba bàyyi yenn farate yi nga xam ne ñu bari ci ñoom dañuy dañuy bëggoon rek gedd àdduna far ñëw rek toog ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ñu yonent bi bëggoo noonu yonent bi mu bëggoon mooy ñu jàngee ci moom ni ñu yore kër aussi ñu jànge ci moom ni ñu yore kër te mooy di kër kër yi Euh, Omar al Ashqar docteur Omar al Ashqar euh, wax na wax ju ju am solo ci saxaaba yi ridwanullahi taala mun ashaabu rasul umul jiilul mithaali rabbaahum rasul nee na saaba yonent bi ñooy génération modèle ndax ñoom yonent moo leen yar wa kaanat tawjihatul qur'ani tulaxiqu ba pare alquran topp leen fu ñu nar a jàdde mu a déedéet du foofu am loolu am chance la léegi tuaaliju amraadan nufuus feebar bakkan yi amoon mu faj ko raxas seen xol yi yëkkati leen ci gërëb yu kawe Abdullah ibnu Mas'ud nee na ulaayika ashaabu muhammadin sallallahu alayhi nee na ñii ñooy waa kër yont bi kaanu afdal al umma waaw ah, nee na ñu gën ci xeetu yont yàlla muhammad abarraha xuluban ñoo gënoon a set ay xol seen xol yi daa setoon wecc ci bokkale yàlla dong nga ci nekkoon seen xol yi wa amaqaha ilman ñoo gënoon a xóot ndax dañoo amoon chance lu leen jaaxal ñu làkk yonent bi waaw ah. wa aqalluha taklufa ñoo gënoon a néew ay ay ay tricherie tricherie waaw ah. du daawuñ tricher lu ñu def rek dañ ko gëm ixtaarahum llahu li sohbati nabi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo leen tànn pour ñu jàppaleel ko ñu àndal ko ak yonentam bi ngir ñu taxawal diine ji waaw waaw fa arifoo lahum al fadlahum wattabaahum ala asrihim ñu xam seen mbaax wala fa arifoo lahum fadlahum xam leen saaba yi nañu baax lañu jéem leen leen nuru jàpp leen ci seen kent lay kattan seeni jikko jéem leen a jaar fañ jaaroon fa innahum kaanu alal huda al mustaqim ñoom yoon wi yàlla waxoon ñu jaar jëm jaaroon nañ ci kon mu ngoog ah, sahabatu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi ci source su ñuy jàngi baax lañ doon moo tax jullit ju bëri dañuy jàng jaar-jaaru sahaaba yi parce que bokkuñ ay expérience saaba boo jàng rek danga gis ci moom lu loo gisu ci ñeneen ñi moo tax dafa bokk ci lu doon forme jullit yi mooy ñu jàng jaar-jaari saaba yi moo tax association islam yu bari dañ koy programme waaw nga xam ne jamono ju ne dañuy jël benn saxaaba jàng ko ba mu pare jël beneen loolu ci formation yi la bokk euh, malheureusement ñun Sénégal ci compliqué amuñ chance xam xam yont bi bëgg nañ ko nag bëgg gi moom yàlla dogal na euh, mag ñi fi doon jàngale diine ji am nañ pédagogie bu fexe ba yont bi ñun ñëpp ku bëgg ku ko xam ak ku ko xamul mais xamuñ ko muy ëpp ci ñun xamuñ ko moo tax léeg-léeg ñu ñu bëgg lu ko neex far def ko lu ko naqari gàmmu ren gii am na ci ay jotaay yoo xam ne naqari na yant bi naqari na yant bi lool naqari ña woote woon gàmmu ci seen dëkk dañ defe ko caay-caay gu ne nit ñi def nañ ko ren ci biir gàmmu tudde ko diine waaw waaw tudde ko diine C'est compliqué. Euh, c'est triste. C'est triste parce que day gën a jafeel mbaax day gën a jafeel mbaax mbaax mu sa yomb mbaax mu sa yomb ndax doxu yéeg la doxu yéeg boo yéeg ñaari effort ngay boole effort u continuer ak effort u yam fi nga nekk boo sonnee boo bàyyee effort dangay daal bon dafa yomb parce que bon daanu la mooy daanu rek moo tax ñëpp a mën a bon mais baax li muy jafe-jafe-jafe bu njëkk la gënoon yomb ndax baax bokk na ci li koy yombal ñu xàmmee kook bon léegi lan mooy mbaax léegi jataay yi am toowoon ban jataay mooy bu baax bi ña nekkoon service Malick di firi xilaas wala jumaay si wala ñu nekkoon ci beneen kër ga di di ndaga te ñoom ñëpp ñuy màggal guddi ba ban mooy baax ba a baax xàmmee baax ak bon farata la de farata la nettali naa ko fi ay yoon yoon du ma bàyyi di ko nettali ndax bind bu rëy bi ci nekk mooy nettali boobu ñu netti Cheikhul Khadim suñ Tuba radiallahu taala anhu ne daa mas a toog njaareem benn bis mu génne woo fere fere fere fere yi mooy taalibe rek ñu ñëw mu ne leen li tàmbalee fii ci Bawol ba Saalum nit ñaa ngi fi ne xasar xasar mooy lu bari bëgg a baax rek baax te leen li tàmbalee ci Bawol ba Saalum nit ñaa ngi fi ne xasar mooy ne bëri nit bëgg a baax nag mais baax te leen tëj ñu toog di ko déglu parce que moom buy wax da ngay déglu rek boo boo waree wax dana la ko wax mu toog ba càgg mu ne est-ce que xam ngeen lu tax mbaax te leen ñu ne ko déedéet bakk mu ne baax daf ne bërit ne cëpp fële ne man du ànd ak bon nee na bon itam siisu bon siisu ne bëreet moom itam ne cëpp fa ca des ne man tam du ba ànd ak baax parce que man ku bugg la ànd du ma ànd ak yow baax bon nekk fe ne yàlla yàlla ne man mii leen bind itam de duma leen boole man mi bind baax ak bon de malgré maa leen bind mooy nangu ñu ànd nee na nit na bëlbët na cëpp ci géew bi ne man mii maay boole baax ak bon mooy Sénégal man mii may ba man mii may boole boole baax ak bon waa ji wax maa tey la wax maa tey ki ko def ki defoon gàmb gi wala ci tool nee na moo tey mooy maa tey maa boole baax ak bon ñu ne teg sëñ Tuubaa est-ce que xam nga boole baax ak bon nu mel ñu ne ko dee leen bakk mu ne mi ngi mel ni yar ganaar neex la nga yar ay ganaar ba am séq yu mag nga tabax ngunu dugal leen ci wëlbatiku dem ci àll bi rëbb ay till am till yu met yu soor ñëw ubbi ngunu li dugal ci till yi ci biir ganaar yi Sëñ Tuubaa bu bët setee lu ne nga mën a am ba des ganaar lu ne nga mën a am des ganaar mu wax wax ju garaaw nag yoo xam ne moo moo moo moo tëj lépp mu ne Sëñ Tuubaa mu ne loo sonne woon ci baax am fi sonne ko ci bon jóge fi parce que su bon jógee baax day juddu naturellement nee na loo mën a daj ci baax am fi sonne ko ci bon jóge fi rek ndax bu fu bon jógee rek baax moom ñëw baax moom naturellement fu bon amut moom fa waaw voilà donc c'est très clair ah c'est pas difficile ñun dañoo amoon ay kilifa kilifa yu mat ay kilifa yéene ñu jàmm wax ñu mbaax jàppale ñu baax léegi nag ñu am ay bandi kenn topp tootul kenn kenn topp tootul kenn lu waay def baax na lu waay def baax na mu ci jikko mu jikko voilà foofu lañ toll waaw fii toll xaw ma kañ lañ ciy génn xaw ma mais en tout cas ba bañ ciy génn baax fi du yomb baax fi du yomb parce que gis naa ci gàmm gi ñu gàmm yoo xam ne pàkkat yi ñu ci pàkkat yi musuma gis ñu góor ñu mën a fekkee noonu sol ba rafet sol lu cher takk montre lu cher di pàkkat ci ba ñaqatoo képp ñu ñu tuddee ko gàmm gàmm ñu ne yonent bi la gàmm te kat góor ñooy ñooy fecc jigéen ñi takk waaw eh. gàmm ñu ne dañuy gàmm c'est compliqué ah très compliqué donc kon xam naa ne mën nañoo yemale incha allah bi nu tey bi foofu ba dellu si fekk jàmm di wax rek ne baax moom yombul mais tey jii la gën a jafe parce que fi mu ne nii xàmmee baax ak bon c'est un grand problème waaw loolu moo tax yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxam yépp am solo mais ñaan gi mu ñaan yàlla yàlla nag ma woon dëgg ba mu wóor ma ne lii mooy dëgg nga may moo topp ma def ko yàlla yàlla nag ma woon neen ba mu wóor ma ni lii mooy neen nga may ma ma bàyyi loolu lu jar a ñaan parce que jamono jii ay boromi dara ñoo nekk ci caaxaan def ci alal ju bëri mu neex na parce que jataay yu parfois foofu dafay neex ah dafay neex parce que lépp loo mënta amee sa lekk bu neex da nga ko fa am te itam kenn aayewu fa dara xam nga foofu am am taali bi da koy yomb ku mel na sëriñ bu mel na am na ñoo xam ne seen nit ñu bëri ñi def neex gi doo nga tax kese salaamaaleykum